waay bi rek mooy Cheikh Tidiane Diop ñu nekkoon daaray Kocc mu yor ñu yor bu rafet Cheikh musul lekk dara bàyyi ñu musul xam dara bàyyi ñu lépp lu mu am rek yéene ñu ko muy baax baax bay bëgg a dee jabaram tamit nekk waxu noppi gën koo baax ak njabootam kon nag du ñuy def di ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana bésu tayam bii bésu bànneex la mais tamit bésu fàttaliku la bésu bànneex la mais bésu fàttaliku la ndax tey xol tooy na tey xool doy na waaye Cheikh daal kenn mënu koo fay dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjana ndax bi mu nekkee ci tur bi ba léegi kenn mosul am lu ñu naqari ku nekk rôle bi nga am rôle bi nga méngool dina la ko jox te dina la jàppale dina la dimbale li ma gën a frappé ci Cheikh da ngay ñëw ci troupe bi dalay xool ne la tey daal yow nekkoo tey lan la mu wóolu ci bureau ne la waa arwaa lan la xanaa dangaa banque waaw mu ubbi turaal bi jox la xaalis laa bi daf manqué nañu nag waaye yàlla baax na bi mu fi tegee jarbaatam papa Demba Ndiaye papa Demba ni Cheikh doon doxe ñu ngi koy doxe du ko raw ñu ngi koy ñaanal jàmm daal ak salaam papa Demba yàlla na sut nijaayam ay fan Cheikh daal toujours ñu ngi koy ñaanal li ma gën a barke moom mooy baaxam ak xalaatam ak xalaatam Cheikh day toog ñu war a jouer pièce war a jouer pièce day toog bu toogee toog toog xalaat dina xam ne rol bi kii moo ko moom wala kii moo ko moom dina xam ne kii moo ko moom wala kii moo ko moom mu jox la ko la jàppale la nag man damay génn ci biti sax ñaa ngi xoolal maire bu seytaane baa nga ne maire bu bëgg xaalis baa nga ne waaye du man rôle la rol bu ñu la ko joxee def ko ba mu mat ñu defee ne yow noonu nga mel waaye meloo noonu loolu la loolu la